Ah, c'est comme ça ni lay su ak day importance muy nonou yakarna ken do ko présenter ti muy Bachir Bachir euh, d'abord dañuy wax ci liste bi avant que ñuy dem Qatar d'abord euh, liste bi gis nañ ne salu demande bi nga euh, à travers vidéo ñu def yépp dañuy réclamer ñu coach bi ci wax yow ko si wax loolu rek laa mën a parce que nit ki moom bo togué pendant 6 mois amo club dafa compétition ça sera difficile pour ñu sélectionner la ñi nga xamanté ñom ñi ngi compétir pendant temps bobu yépp donc je pense Saliou Ciss on aurait tous aimé mu dem coupe du monde wax Sénégalais yépp ko wax mu né la Saliou bëggu nañ mu dem coupe du monde mais liko fausse rek mooy que il n'a pas de il n'a pas de club donc looloo ko looloo ko ñun xam nañu bëggam Sénégal ñun xam nañ fu ko réew mi toll parce que j'ai à la à la côté ñu waxtan ci lu bari masaw li ko dal nii mais di ko wax ni que. am na yeneen yuy ñëw incha allah te yuy dàq bu soobee yàlla. d'accord mu nekk tamit loo xam ne ah, amul club c'est que mais euh, euh, waroon na xam ne

jour ñu ngi koy évaluer ci compétition journaliste bi ñu ngi koy évaluer ci question cameraman bi ñu ngi koy évaluer ci image yu mu indi ndax leer na wala leerul donc je pense que jour bi bu demee moom toog pendant six mois compétirul ça sera difficile pour nga woo ci kanam ñi nga xamante buñ taxawee ci critères yooyu Nampalys bi muy ñëw coupe d'Afrique bi compétirul mais mais mais am na club mhm. am na club mais yow yow tey boo doon yónnee Saliou convocation ko ban club bon ma ma mané, ma ah, yamuñu ci euh, mënuñu basé wu ci compétition. mais ci euh, qualité de jeu ak li nga xamné ne Saliou mo moo football fubal latéral ci aduna yëpp lolou nangu naa ko. Saliou Ciss képp kuy latéral ci aduna mo la football mais juste que un jour qui n'a pas de compétition tey tey coupe du monde buñu wax c'est au haut niveau la tu vois. Mhm. bo amul compétition day feeñ mais ñun bëggoon nañ Saliou Sis dem barké alcorane d'accord man mi di waxee bëggoon naa Saliou Ciss dem. ok est-ce que amoo tamit am nga ci ay quelques questions yi nga xamné ah, pour Aliou euh, ki nga xamné ne moy Sadio Mané. ndax amoo ci tuuti loo ñu mën a leeral par rapport ak yooyu. Sadio Mané dara dalu ko Sadio Mané ngi ci jàmm Sadio Mané ngi tëdd Sadio Mané ngi yeewu di ndekki di añ di reer Sadio Mané ngi entraîné dara dalu Sadio Mané boo leen xëyee lekk leen ba suur naa leen ba màñ Sadio maane dina ñëw ko du monde dina ko toj dina ko. mu naan tësës. naan tësës. ok merci.